kilifa kër gi kilifa jotaay bi borom bar bi sëriñ Cheikh Matou sëriñ Saliou di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ndax taxawaayam ñëpp xam nañ ko daanaka sax bu mu jar leeral ndax ñëpp ko xam ñëpp commencé ci yéene ko kàttan ak yéen ba yéen ñi nga xam ne mooy juróom bu tedd ba tàmbaloon na ko. mu àggale ko te lépp xam ne ni mu ngi ci ak mboolem rakkam yu tedd yëpp te buñ ci tuddee Serigne Moustapha Bakkim Serigne Saliou mooy tam taxawal ñëpp xam ne ko ci ak bëggam Serigne Touba nga xam ne loolu mooy mandarga yi gën a fës ci moom waaye rakkam yëpp Cheikh Mouhamadou Bassir moom itam ñëpp xam ne taxawaay bi ci ñun dëggoo lépp ne ci la wàññi wu nekkoon ci Seex Abdou Khadim Mbacké moo itam li ñuy wax daa fudda foofa ndax day am loo xam ne boo ko liggéey sax dañu war dara baas ci sëriñ Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké mi nga yàlla def na barab bii moom lañ ko jëmmaliwaat mu ngi ko jiite nekk ci imaam di ko taxaw. te yàlla def bi itam ci xalaatam ginnaaw bi ñu koy jiital ci la amee kon moom itam ñëpp ko amee lu cant amee lu gërëm ñu taxawaay kon bu ma jaaree fii ma jaar lépp li ñuy fiir rek mooy tawfeex bi nga xam ne suñu borom Serigne Touba jagleel la ko Serigne Saliou Mbacké ci ak njabootam ba tey rek daa koy wax ñoom ñëpp kenn ci ne yàlla defal na la tawfeex kenn ku bokk ci moom koo xam ne loolu la war a demut loolu tawfeex la ñu ko Sëriñ Tuubaa defal kon yàlla yàgg lool yoon wi nga xam ne ci ne ñun ci Sëriñ Tuubaa ci dara loolu bëgg Sëriñ Tuubaa nekkoon nekkuñ ca boolewuñ ko sax ci seen dund ak kon yàlla suñu loolu dëgg kattan na leen mu wat li seen yéene la seen wàllu ba tàmm yàgg na ko. di siyaare itam suñu kilifa bopp yi tamit ñu fi teew te xam naa du ma mooy nii ñëpp ndax man gisuma leen waaye bu ma ci tuddee Serigne Hamsatu Mbàkke Cheikh Abdou Lahad mi nga xam ne daanaka sama kàddu sax day dugg ci biir ay bi ndax li ma ci wax lépp ci fàttali ak ci soññe wax na ko te moom ñëpp xam nañ ne Cheikh Abdou lim doon ci moom. moom jur ko la def ni ko sëriñ Saliou jëlee waaye loolu la doon coono Cheikh Saliou Mbacké moo ko yar tàggat ko jàngal ko yar ko def def def ci moom ñu def ci moom te itam mu xam ko te delloo ko lool bañ na ko wax adduna mënu ko jeexal ndax koo xam ne la ma soxla rek xikma la loolu ko si Sëriñ Tuubaa defal waaye Sëriñ Hamza li ëpp ci ay waxam ay maraajaam yëpp ci sëñ Saliou lay def loolu rek yar bi nga ko yar ak bëgg bi nga ko bëgg moo ba foo ko gisee sax balaa sax ci wàllu mu sax ci sëñ Saliou lay def moo tax ñu koy nuyu baax di ko sant ndax moo tax suñ diggee moom ginnaaw boole gi ñu sëñ Tuubaa boole dese bi ci dara na lool te dara mu si am ndax yëkkati ko yëkkati na doom bu bàyyi na ko te loolu mooy li gën a tuut ci sama digg moom kon ñu koy sant moo tax ko gërëm di ko ñaanal ci barkeb Serigne Touba moo doon suñu borom gën koo dëgëral gën a jubbanti am xelam ko laaj ci li nga xam ne lépp loo xam ne dégg na ko te muy jëm ci yoonu murid lu mu ca war a defaan rek du ca xaar kenn lépp lu mu dégg ci bu dee loo xam ne jàpp na la doo war a yëkkati wax la day mel ne bu ko defu doon jàpp kon nag li muy wax ñun ñëpp dañuy maase wax rek ci isa xaalat xasaani fa sadiquha fa inna al xawla ma xaalat xasaani kon li mu wax lépp ñu tàbbaal nañ ci biir di nuyu itam sëriñ si bi Cheikh Abdou Khadir moom mi nga xam ne moom itam taxawaayam ñëpp xam nañ ko yàlla def kilifteef bi mu doon ci ñun itam mën naa leen ba yàlla si nekkul sëñ Abdou Khadre lépp daal baat bi moom di ci moom mooy dem leen ci Sidi maa sëñ bi sans loolu ak junj doon suñu digg moom loolu itam yàlla def mu rafetal ko lool bi nekk ci dooru bi question bi di jàng xam-xam bis bu yàlla sàkk guddi ak bëccëg këram lañ laa ay fay laa waaye mu ne su xam ne jotaay bi tey. sëñ si bi ku xam xam ne dafa lawet ba dama leen daa wax ne ku duggoon ci biirum néegam bi fab dara mu fekk la sax doo dara nga kersa loolu ci laaj baax yëpp xam naa jotaay dafa ndax dafa bokk ci sunna yi te ajjilu futu kon wax ji gën a xanaa di fàttali ko rek fi nga xam ne barab bii yàlla def moo ko taxawaloon di Serigne Saliou Mbacké moom nag jotaay bi dafa gàtt ba ku bëgg wax ci moom boo xam sax fooy tàmbalee te mboolem njabootu Serigne Touba gépp nag koo ci wéetal waxtaan ak moom jaar naa ak Serigne Saliou foo xam ne ba àdduna ci kuur ko fàtte man nag jàpp naa ne mbàcc na ko waaye nag njabootu Serigne Touba gépp la loolu nag. Serigne Touba mu jël bi mu ko fi mu te léppam di lu waajal moo ci feeñ ba day mel na loo ko si yoon wurit sax wala loo fi séen baatu suñu saa yu tàmbali ci biir ba ci kii fi nekkal Serigne Touba rek Cheikh Mouhamadou Mountakha ñëpp xam nañ ne ba di tànn di ko jiital booba ñëpp ràññee la te mën a seetal waaye ba mu koy jiital ak am na lu doon séddale sax ci biir kër Cheikh Mamadou Bachir ba mu joxee Serigne Moustapha Sy Bachir ba noppi da ko def mënut a xaale wala ba def nga ne jotaay bi jënd Serigne Moussa Mbacke bi itam nett na ma tax ba ma koy wax woo Serigne Serigne boole waatoon na ko moom ne ko na ko taxaw ngir ëllëg kon day mel ni jotaay bi taxaw kon ku fonkoon Cheikh Mouhamadou Mountakha waaye ñëwaru Sëriñ Tuubaa ñëpp itam mën naa ne foo ci dem rek loo fa gis tam yéem de rek Sëriñ Saliou fa def loolu rek tawfeex loolu rek la jiitu ca la ko ko mooy bëgg ñu bëgg Sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ Saliou dafa bëgg Sëriñ Tuubaa ba bëgg jëmmam te am na loo xam ne Serigne Touba daroon na ko ci diggam rasulullahi muy mahabbatil muxtaar sayyidina hubbil maxaaniya noonu la defal diggam Serigne Touba dama daa wax ne koo mu ràññee lool sax da gis mu fonk taalibe Serigne Touba yi ba mu ne ñoom lañ jiite sax ci njabootu boppam. loolu bëgg gi bëgg Serigne Touba daa xool taalibe Serigne Touba yi Serigne Touba ñëw waaye Serigne na ko Serigne Saliou saa su xëyee nit ñi di ko gën a bëgg di ko gën a sopp kenn campagne yu leen ci lu tax ñu di ko waaye kenn ku yaa amal sa bopp sa ab saa su xëyee nit ñi di a bëgg loolu nag bëgg gi bëgg Serigne Touba jël léppam. def ko si mbirum Sëriñ Tuubaa mbooloo Sëriñ Tuubaa fayal ko li ko fayal te li ciy firnde yi mooy barab bi ñu toog Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ko nattoon yëkkati ko jox ko waaye ci biir nekkul Sëriñ Saliou mboolem lu matt ci biir Tuubaa li pàkk yi di bari bari nga xam ne ay téeméeri junni parcelle waaye lépp turu Sëriñ Tuubaa rek def ko addee Sëriñ Tuubaa doy na ko sëkki titre foncier bu Touba ndax xam ngeen ne titre foncier bi ñëpp xam nañ ne la sabab si mooy gàllankoor yi amoon ci juwaay Touba ba ni su waaye ba atum dernier titre foncier bi ëpputoon quatre cent ay kilomètres sama tukku ko te loolu ñu bëri xamu ko ci nekkul suñu seetlu ak xalaatam ak doogu gam ca dogoonu ca boo fekkoon président bi fi jëkkoon nekk. ñu sàkkoon ko ci moom te yàlla def mu sotti waaye day mel ne ci dogam ak yéen jëm ci amoon moo tax mu dogg ci président bi mu fi bi fi bi fi mu teg ko fi mu Abdoulaye daanaka saw sa ca la yàlla def titre foncier bi ñëpp xam na ni ginnaaw Sëñ ci la ñuy door a xam li muy jariñ ci dëkk bi kon waxuma liggéey yi mu def ci biir dëkk bi xel ko war lim tërbi ci nit lim defar ci nit ci daara lim tabax ci juwaa yépp boo ko jural teg leneen waaye ci titre foncier bi képp doo ne say sàrra liggéey walbatiku yi delloo taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ci positif mooy delloo yoon wi ci na ko Sëriñ Tuubaa xàlle woon mooy lépp loo xam ne nuuru na mbir mu àdduna wala lu koy nuur rek mu jël ko dindi ko ci biti te yàqu dara ci doxalin yoon wi xam naa nag mel ne waxtu wi jege na te nit yàkkamti nañ xam naa damay jeexale foofa wax yi rek di ñaan yàlla ñu ko Sëriñ Tuubaa fayal ndax yàlla def na kenn ku ci ne yaa ngi yaa ngi dund ci moom ba mu mel ne Sëriñ Tuubaa ngay dund sa digg moom ndax loolu njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp na ci fu mu boo ko jubee lu mu xat-xat danay wax ne bala ngaa toog nañ la indi dara nga toog te loolu ku ne xam ne ne loolu waru ko ci kenn. waaye ak bëggam Sëriñ Tuubaa te ku ne muy dàkk Sëriñ Tuubaa teew ñu fi nekkaloo Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Mouhamadou Fadil addi yi jëm njëkk yëkkati muy am bari mu bari lool nit ñëpp di ko yëg dafa jël lépp jox ko Cheikh Mouhamadou Fadil addi te loolu mosu koo bàyyi ba ni ni mu nekkee Sëriñ Tuubaa bi mu dee ba doon Sëriñ Tuubaa rek xam ne ñëpp a ko war a jox dafa wëlbatu ko am mu jot mu dajalewaat ak yi bari bari dajale ko def ko ak yi ñu ci nekk ñëwoon si tubaab kenn mu si kenn naa fàttaliku si mbuur mu sëñ Buxaari ci mu jub ko séfloon daa def ko ko sëriñ delluwaat mu tegaat ci dara mu jël sëriñ Saliou bi ne ko ñaa ko bu jox mu di ko téye ndax joxuma ne ko ñëw addee sëriñ Tuubaa te sëriñ Cheikh mu sëriñ Saliou yëpp ma sama nekk du ko ne ma da ko waxoon ne ko saa soo ma war a jox addi dee ma jox addi waaye nag lépp loo yëkkati jox na ko ngir Sëñ Tuubaa dee ko tëjee kon sëñ bi foofu la ne woon ku mu mos a gisee Sëñ Tuubaa la daa feeñtu ci waaye nag Sëñ Tuubaa fay na ko xol bindéef yëpp wa min wa min shahaadati l-fataa haysu xasat allaa yurudduhu fuaadu sat sëriñ Saliou waxuma xol bi xolu taalibe Sëñ Tuubaa yi waaye jullit yeeg ñi di julli sax yaa def na seen xol bëgg Sëñ Saliou asalaamaaleykum wa rahmatullah